leen di rappel kenn par kenn sant leen gërëm leen ci teewaay bu rafet bi te teel lool ànd ak dëglu ak xerewlu gi nga xam ne moom la jataay bi laaj waaye nag suñu mënta tudd ñëpp itam ñu leen ñenn ñoo xam ni dinañu yóbbaale ñi ci des ñëpp jox ngeen gërëm gi yéen ñëpp ngeen bokk ko wax dëgg yàlla ay kilifa yu mag yu bari ay yitte dagg nañ seen yitte yooyu teew ci waxtu wu teel jëmmal suñu jataay bi ki ci njëkk di kilifa dëkk bi di xalifa général bi Serigne Moustapha Lo ànd itam ak njabootam gépp teew ci jataay bi ngir alquranul karim ak itam digganteem ak suñu Serigne Cheikh Ibrahim Khalil hafidahullah Serigne Cheikh Mbacke Lo moom it di doom ci sëriñ Cheikh Lo Ngaabu di sama dëkkandoo man itam di sama xarit teew na moom itam sëriñ Cheikh Abdou Lo sëriñ Abdou Samad Lo sëriñ Soaybu Lo dañu gën koo xamee ci Abu Lo sëriñ Abdul Ahad Lo moom sëriñ Cheikh moom it sëriñ Cheikh Rama ñoom ñëpp ak mbokkam sëriñ Alxaaji Lo ñoom ñëpp teew nañ ànd ak xalifa généralu Ngaabu jëmmal suñu jataayu alquran bi sëriñ Cheikh Cissé jóge ba kër sëriñ Madiang te digganteem ak Cheikh Ibrahim ca Dakaaru ku ko xam xam ko ci wetu Cheikh Ibrahim boobu ba léegi teel naa teew lool ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm sëriñ Xaadim Loo moom itam teew na sëriñ Mbàkke ànd ak sëriñ Mbàkke Loo jóge ñoom itam ba kër sëriñ Madiang sëriñ Abdourahman Sow jógee ndar moom itam teew na ànd ak délégation bu mag a mag a mag ngir jëmmal jataay bi nekk noonu itam suñu mbokk yi nekk bi nga xam ne seen taxawaay ci daara ji fës na lool teew nañu ak délégation bu mag a mag sëriñ Saaleh jàlloo jiite ko ak sëriñ Demba Ñing ñoo ñëpp teew nañu wante itam ñi nga xam ne ay bàjjen lañ ci daara ji ay bàjjen ci dëkk bi soxna Xadi Lo soxna Maymuna Lo soxna Mambousa Lo ñoom ñëpp seen teewaay fës na seen taawi teewaay itam rafet na nekki noonu sëriñ Abdoulaye Ba jóge ba Thiès alimam musa Lay bokk ci Daaru Istiqaama waaye jóge ba Gosaas sëriñ njaga Kan moom itam yegg si na Mouhamad Mamadou Sarr yegg si na Aloustas Abdou Karim Ndour jóge ba Njaareem Cheikh Abdoulahi Kebe yegg na nekk noonu seriñ Mbacke dem ñoo ñëpp ak Abdourahmane Diouf moom itam jóge ba Diourbel ak délégation yi nga xam ne ñoo jóge ci gox yu bëree bare bari ci association Daarul Istiqaama ñi ngi xaar nga xam ne moo ŋànk kuréel gu mag gi di docteur Mouhamed Ahmed loo léegi mu yegsi ak président bi di docteur Serigne Elimane Ndiaye yabal ñoom itam yegsi na yabal nañ fi itam lu jiitu loolu ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom alimam Ismaïla Ndiaye topp ci président daaru istiqaama ak al oustaz Omar Sall mi nga xam ne moo yore organisation ak mboolem ñi nga xam ne dañu aju ci daaru istiqaama yabal nañ leen ñoom itam ñu teew ngir teeru gan yi dalal leen ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne liggéey bi ci seen kaw la aju kon mbokk yi ñu ngi dellu sant di gërëm ñëpp ci seen teewaay bu rafet bi ngeen teew ngir alquranul karim di ñaan yàlla subhanahu wa taala yéen ñëpp mu fay leen balaa ma Cheikh Moussa di dagg jazakumullahu xayran wa baraka fiikum kon ba ci kanam di nuyu suñu mbokk suñu xarit alustaas ahmad sugu moom itam yegg si na ak mbokk yi nga xam ne yëpp ànd na ak ñoom jóge ba waa daan sugu jërë ngeen jëf ila daari alistiqaama wa hiya tashuqu ubaaba altaarix ka ay xatwin ka ay xatwin yajuubu al arda murtaida محملا بانتظارات ورجع ندى آتيك من سدة الأيام آتيك من سدة الأيام تملأني ذكرى تؤثث في الوجدان ما احتشدا آتي وفي النفس أحزان مكسرة ورجعة من حكايا تستحيل غدا كتابنا أمنا الكبرى التي انفلقت من أسطواناتها طرائقا قددا ما زلت مذ فورة التاريخ تملأ هذه الأرض أم نورا تملأ هذه الأرض نورا وأمجادا وفيض هدى رسخت في هذه الأوطان فلسفة قوامها أن دين الله لن يحدا عشرون عاما وما زلت التي عهدت أن تنشر الهدي والحفاظ والرشدا فاسأل مناطق هذا القطر سوف ترى في كل حي فتى من نبعه وردا يا نبعنا الزمزمي يا أسطوان ندى كأنما شكلت من إرثه جسدا بكل ألسن هذا القطر نعلنها شكرا لكل جميل سال واتقدا شكرا لنقاب وشكرا للتي اتخذ القرآن قلا فلم يعدل به أحدا شكرا لنقاب وشكرا lillati ittaxada alqur'ana qillan falam yacdil bihi axada fa kullu ma dukirat fi lcilmi falsafatan qaalu lada mawtini lyunaani qad wulida wa kullu ma zakaru tafsira fi watani taraddadat sëñ xalil fa saara mithla sada falyaxfad allahu qutran anta saakinuhu yaa man tuqarribu lil azhaani mabtaada wa shukran wassalaamu aleykum famille bi yëpp ànd nañ ko ak moom te di ko bégee di ko ci ñaanal yàlla yàlla mott li ci liggéeyam ba mu àgg fa mu kawe njortam alquran nag kenn ku nekk xam na ne li war ci jullit mooy ñu ko ci dënnam bu ko defee leneen lu mën doon ci wàllu adduna dana jàppandi ci moom loolu gis nañ ne mbooleem xeeti njàng yi nga xam ne ñii ñu koy jàng ngir wàllu xam-xamu benn bu ci nekk rek bu ñu fexee ba ndaw li ñu jiital ci moom alquran loolee dana yomb ci moom lool te gis nañ ci ay résultats yu baree baree bare kon daara ji liggéey la boo xam ne kii koy taxawee nekk na loo xam ne warteefam la waaye ndoroom la kon nag bu ko àggalee fii nga xam ne tey mooy doxalin bi nga xam ne moo gën a dëppoog te benn tumuranke du ci am te du tee nit ki xam li mu war a xam ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale kon loolu nun ñi nga xam ne ñoo bokk moom ak bokk ñi ngi koy sant bu baax ci loolu di ko ci ñaanal yàlla di ñaan suñu mu dolli ko ci ay ndam yu kawe ndax ku ne xam na ne yor ndaw rek yombul rawatina nga bëgg a def ci moom xam-xam bëgg a def ci moom alquran bëgg koo yar xam nañ ne liggéey bu réeréyu kon yàlla rek mooy ki nga xam ne moo mën a fay loolu waaye doomu aadama lott na ci ndax inna alladina yatluuna kitaaba allah wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur kon loolu kenn ku nekk sa yaakaar boo ko tegee foofu rek dana la soññ ci lu bare bare damay faral di wax ne nii daara yi tëddee léegi ci jamono bi rawatina fii ci réewu senegal nga xam ne moom mii bi muy tàmbali liggéey bi mën ko tàmbale ca Ndakaaru ca capital ba nga xam ne foofu yi la yàlla gën a wane ay mbiram ndax ku ne xam na ne Ndakaaru ak ni mu yëngoo te lañu fay gis ci wàllu résultat ci njàngaleem alxuraan daanaka gisuñu ko ci dëkk kaw yi nga xam ne ñoo ca saanoon di ko def kon loolu day wane ne ne ba léegi la yàlla waxoon rek mi ngi ci inna nahnu nazalna zikra wa inna kon jamono yëngu-yëngu lu mu xat-xat mënu la yàq dara ci suñu borom bëgg kon nag yéen ñi ko ci nekkal yàlla leen ci yàlla gën a taxaw ndax ñu jóg ci attaqué alquran dafa bari ñu jóg ci attaqué ndigali yàlla yi dafa bari waaye loolu lépp waxtu wu ne suñu borom di ci wane ay kiimtaan di ci wane ni waxtu wu ne moo féete kaw loolu lépp kon nag yàlla leen ci yàlla gën a jàppale gën leen cee taxawal Cheikh Ibrahima ñu ngi lay sant bu baax di la ndokkeel te di la xamal ne ndax lii ba nga tàmbali metti na lool nun say bopp ñoo ko xam te xam nañ ne yàlla rek nga ci xool kon fu mu àgg tey dara jaaxalu la ci dara jaaxalu ci say bopp ndax xam nañ ne dangaa jaayante woon ak suñu borom te wutoo ci àddina wutoo ci dara lenn lu ca nekk sa man-manu bopp ak sa am-amu bopp def nga ca fa nga mën a yem ku la cay jàppale doog la caa fekk loolu mooy liggéeyal yàlla yàlla képp kuy ànd ak moom wala nga koy tuddoo daf lay xool ba xam li ngay wax dëgg la ci yow wala déet balaa joxal ñenn ñuy ñëw man di la jàppale ca la def da koy wóor na lii ngay def wutoo ci gis tal wutoo ci àdduna kon pas-pas kooku yàlla na ko suñu borom sàmmal te xam nañ ne àgg la ci koo xam ne yàlla mën na la cee fekk bu wér a wér ndax li ngay def dëkk bu wér la moo waral nga man fee dajale mbooloo bi at mu jot di ci wane yi résultat yu toll nii kon loolu na nga yaakaar ne kanam rek la jëm ndax ku ànd ak yàlla doo wér mukk ndax doomu aadama mëtul wéttal ndax lu mu la wéttali rek ëllëg mën na koo damoo wala saa boo geesoo doo ko séen yàlla nag fi mu nekk du fi kon yàlla na leen yàlla jàppale bu hurmati xaadimu yonent bi alayhi salaatu jox kàddu gi bii ci Leeral FM ñu mën koo topp ci eh, téléphone yi ak YouTube ak itam Vision Touba ak suñu rajo bi nga xam ne Oustaz Mamoun Mbacke yegg si na léegi moo ko jiite muy Salaam FM nekk fii ci Mbacke moom itam ñu ngi koy jàllale en direct ak mboolem jumtuwaay yi nga xam ne mënees na caa jaare ba topp activité bis ci àdduna bi ak lu mu soli soli foofu ñi ngi sant itam teewaayu suñu mbokk Serigne Moise Diagne jóge ba Dakar ànd ak délégation bu mag a mag a mag suñu bàjjen soxna Aminata Lo di bàjjen ci Cheikh Ibrahim ak njaboot gi teew na teewaay bu rafet depuis ca suba suñu mbokk Serigne Baara Ndiaye di commerçant di ku yittewoo daara ji moom itam teew na délégation bu am solo bu jógee ca gaat représenté association Moussa Diomaye suñu mbokk al ustaas Ibrahim Sarr ustaas Khalid Diouf maam Jaara Bousso Mbacke Khadijatu Gaye ñoo ñooñu nekk ñi nga xam ne ñu jiite délégation boobu teew suñu mbokk itam Basiiru Saaxo ànd nag Serigne Mamoun Mbacke mi jiite Itaatu Salaam Serigne Mouhamad Lo imam fii ci Ngaabu Serigne Mouhamad Lo Koura ak mboolem yi mbokkam mboolem seeti Seex Hamza Lo teew nañu ak Seex Ibrahim Khalil ibnu Serigne Abdul Karim di kenn ci daara ji docteur Ibrahim Khalil di kenn ci daara ji niki noonu itam alimaam Mouhamad Lo jóge ba Louga adjoint maire euh, Dala adjoint maire Dala si Mor Ñang yegg si na ak mboolem mbokk yi nga xam ne ay sëriñ daara lañ ay njiite daara dagg seen nit yëpp teew jëmmal bis bi ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ñu bàyyi war Cheikh musa ak kàddu bi jërë ngeen barigo bu fees dal nekk ci mbartal teg ca sa loxo ñàkk caa teg sa loxo yam day dem téereb suñu borom bi tabaaraka wa taala ku seetlu ku seetlu da nga gis ne lim digge woon ne moo koy wattu moo koy wattu te nun waa Sénégal waroon ko yëg bu baax docteur jazaallaahu xeyran dégg naa ko ci ndaje ma amul bu yàggul mu naan alxuraan lañ ñu séddee nun nun waa Sénégal dina war a yëg ni suñu borom daf noo far ci alxuraan suñ ko seetloo xeex gi nit ñuy xeex alxuraan at yi diggante 1993 ba programme bii di tàmbali te sëñ Modou Guèye ak Cheikh Ibrahima tàmbali woon ko ca ca ca parcelle def ko programme mu juróom-benn at yoo xam ne ñeenti at yi alxuraan la ñuy jàng ñaar ñi ñu jàngale programme mu luxal arabe wala xisaab ndax ñu mën a am na mustawa shahada ibtidaa yi du woon loolu Cheikh Ibrahima boobu fa yëf yi toll woon fa yëf yi toll woon ak fi mu toll léegi ku ko seet da xam ne faruk suñu borom dëgg la faruk suñu borom bu boo xam ne gaa yi effort yi ñuy def coono yi ñuy daj ak liñ ciy def ci ci ci coono ak nun yëg nit yëgadee ba noppi yëf yi dem rek maanaam xeex ñuy xeex alxuraan ak diine liñ ciy daj ak nun ñu nuy xeex nit yëgadee nga xam ne am na ci loo xam ne boo koy wax dañuy defe ne da ngay wax rek waaye demewul noonu ba noppi yëf yi dem rek li muy tekki moo dina borom ba kon ku ci nekk santal yàlla ku ci nekkul woon dikkal gone yi yéen ñiy jàng alxuraan xam leen ni seeni waajur dugal nañ leen ci loo xam ne moo gën ci liñ leen di dugal gone gu mokkal alxuraan xool leen fi mu nekk réew mi fu mu toll su su su su saa yu leen soxlaa kàddu gi jël leen saa yu leen soxlaa kàddu gi rek arrêté leen réew mi fii nu toll li fii mokkal ci alxuraan te ay gone yoo xam ne diggante juróom-ñetti at ak fukki fukki at ak ñett diggante diggante boobu. li fi mokkal alxuraan at mu nekk ay téeméer la ay téeméeri téeméer la bu ñu leen jàngalee buñ leen wutalee programme au maximum ñetti at ñu def programme élémentaire au maximum am naa sama sëb boo xam ne ñaari at la ko def ñaari at fii mu nekk nii am na baccalauréat daaw la am baccalauréat série S franco lycée franco arabe ba nekk lu gën a doon jàng baccalauréat série S la fa am fii mu nekk nii ma nga ca bu Thiès concours ba daf caa at te bi muy bi ñu koy indi lu ko suñ franco arabe ba xamul be maanaam mag eh, magam ngeen may may bu fekkee détail la magam dafa maa téléphoné ni ma dafa am sama rakk ju ma sama baay joxoon mokkal na alxuraan lu ma ko bëggee indi seen franco arabe ba ci Louga ma ne ko xam na dara ci français mu ne ma xamul ci aw araf ma ne ko bu ko indi ci dañ koy tardal dañ koy boole xay yi nekk sëy yi yóbbu ko ci école arabe yi jàng français fii ci Sénégal jarul tardal mu ne ma tee ma jàngal français ma ne ko ah soo yeboo beekul nit ji mu indi mu xam na lettre alphabet yëpp ñu yóbbu ko ce directement ce e lañ ko seen première composition mu jël deuxième dikk ne directeur yóbbu ma ce su ma demee may jël premier dafa dëgër fi directeur na ko ay ca xale bi jëloon premier ne man du ma dem wàcc na ñu yóbbu leen CE2 ñu def seen CE2 bu normal kon bu école di tijji CM1 lañu war a def bu école di tijji mag ji indi ko fekkuñu ma fa ñu dem yóbbu ko CM1 mu ñëw seet si ma ne ma dama bëgg nga waxal ma directeur ne ko nañ ma yóbbu CM2 ndax man jàng naa programme CM1 ci vacances ma ñëw directeur ne dañ koy testé de ma ne ah kay dañ koy testé ñu testé ko gis ne mën naa dem CM2 mu def CM2 at moomu école franco arabe privé ak publique yi nekk Louga lu département Louga 99 ñoo ci admis entré en sixième franco-arabe mooy quatrième sur les 99 maanaam dama bëgg a wax ne ku mokkal alxuraan lépp lu muy jàng ku mu koy jàngandool boo ko rawee dalaat da koo neex lu mu mënti doon kon xale yi yéen ñi nekk ci lii xam nga dañ daan wax euh, ñuy jàng alxuraan ñu jàngal leen métier xale yi ku leen di jàngal métier xanaa kon ñu nekk ci école élémentaire yi dañ leen di jàngal métier. xale yi du ñu ñuy jàngal métier ñu ñuy ubbil bunt ñu continuer la Sénégal dañ daan wax amuñu or amuñu lii amuñu laa ay nit lañu am nit ñooñu nit ñooñu former leen ku am xoolal potentialité boobu ku ko am xale am bu 8 ans mokkal alxuraan diggante 8 ak 13 ans lu nekk mën nañ koo jàng cadre bu nekk mën nañ ko am ci ñoom kon lii nun dañ ciy jéem rek waaye tëli nañ ci mënuñu ko état moo ko war a jël en charge wala boog ñun jullit ñi nu organiser wu woon koo jël en xale yii fi mu nekk bàyyi leen ak Ibrahima Khalil ak ku mel ne ñoom dara jaru ko parce que mënu liñ soxla mënuñu ko amuñu ko liñ soxla il faut nit ñi organiser bu ko état bi deful nu noo nu ay jullit yi noo war a organiser wu ba mën a am ay école yu baax yoo xam ne xale yooyu dañ leen fa yóbbu ñu mën a gàttale enseignement élé kii programme élémentaire bi ne lañ mën a gàttale moyen bi ne lañ mën a gàttale secondaire bi ci nekk mën nañ koo gàttal xale yi am baccalauréat ba mu mënti doon nag bu ñu bu mu mënti doon dem université bu mu mënti doon loolu mën nañ koo am suñu organisé wu yàlla na ci yàlla dimbali ngeen di ngeen ngeen jéggal na kàddu gi bu demee neneen bokkul ni ngeen bëggoon asalaamaaleykum. ñu ngi sant mbooloo ñu teew ñëpp ñu ngi ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala dina leen teewoo ci jéeg yi ñu seet ba ñëw fii ak yi boole seet waa jël ci kër ci wuyu si di wuyu si ci ñu woote bi di leen ñaan ngeen yàlla ngaa fekkee ay at i at te am na jot ngeen gën kaa taal gën kaa mën ñun ko lay nga xam ne ñoo newoon ci daara bi ñooy sant rek suñu Cheikh Cheikh Ibrahima Khalil Lo di ko ñaanal lépp lu mu mën ren bu déwénee mu mën ko moom ak ñëpp ñu koy jàppale ñu déglu Sass ñu delloo Cheikh Moussa Sass Sëñ Mor Sass Ali Hadara Sass Saleh ak ñeneen ñi nekk ci ñëpp yor liggéey di leen ñaanal tawfiq ak taysir di gën a soññ sama morom yi pour ñu gën a góorgóorlu rek ci liggéey liggéey bi nga xam ne moom du jeex dañ cee góorgóorlu di naan tamit lu ñu mën leen bu déwénee ñu ñaan yàlla man lu ko raw su ko defee ñu leen di gën a soññ bu ñu wootee ngir di jëm ci liggéey bi ñu ñëw waaye bu ñu laajtee tamit ñu jéem a teewal di ñaan tamit yi nga xam ne dañoo jaboote ay gone yu bokk ci ñun taxaw a nekk gone xaw a néew doole. taxawaay bi nga xam ne ki mooy eh, sama maam di sama sëriñ eh, Cheikh na docteur Mouhamed Ahmed Lo. Eh, tey jataay bii ñu taxaw mbokk yi dafa am lu muy jëmmal li muy jëmmal mooy ne jullit ñi bu fekkee danoo bëgg a dundaat seen diine nam ware na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon saxaaba ya fun jàll del fun jaar delluwaat ci base lislaam ñu jàngaat te bu ñu waxee ballukaayu lislaam base lislaam mooy ballukaayu te mooy alquranul karim moo ci jiitu moo tax Cheikh Ibrahima Khalil daara ji mu amal ak yeneen daara yi nga xam ne ñoo ko topp yëpp ak mboolem daara yi nga xam ne sax ñoo nekk Sénégal loolu yi leen jëmbal mooy nit mënta xam boroomam ca tàmbaliwul jàng alquran karim nan gën a yittewoo njàngum alquran karim jiital ko ci xoli xale yi mu nekk seen tàmbaliwaayu njàng ndaxte kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ak mboolem lim bu baax ñi nga xam ne ñoo jaar ci ban bëggee yëkkatiwaat seenu xeet noonu lañ ko jaarale mooy jàngal ndaw ñi tàmbalee ndaw ñi jàngal leen alquran karim ba mu jiit seen dënn waaye nag bu loolu jàllee foofu te nekk yamukaay bi xale yi buñ mokkalee alquran ba noppi nañ jéem a jàll ak ñoom nag ci beneen étape bi te mooy jàngal leen lan la alquran di wax ak li nga xam ne mooy fii alquran karim te mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi as sunna moo tax suñu borom subhanahu wa taala ci alquran mu ne laqad manna allahu ala almuminina id baata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin kon mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jàngal nit ñi alquranul karim te mooy alkitab jàngal leen sunnaam te mooy alxikma moo tax alkitab ak xikma saa yu tasee ci ci benn aaya rek alkitaab dañ ci jublu alquran karim alxikma ñu jum ci sunna sëriñ bi sallallahu la wa sallam kon des na ñaareelu étape bi mooy bi nga xam ne moo moom mooy xaar ndaw ñi nga xam ne ñoo doon tari léegi ci suñ kanam moo tax loolu euh, sëñ sëñ Touba Diop doon junj lu am solo la fexe ba daara yi nga xam ne euh, ci leen ñi mën a waajalaale xale yi li des ci njàng mi nekk yu yemb ca tasaaroo tam ci mboolem gox yi lu am solo la ñu tànn itam ñi nga xam ne ñoo cay jàngale mu nekk ñoo xam ne ñu ko mën la di doon ca nekk ñoo xam ne ñu jàmbaar lañ doon ñaar yooyu bu àndee la ko ñetteel nga xam ne nag mooy mottali tabax bi mooy yar bi ak jukko yi mooy yar bi ak jukko yi ndax loolu te mënta ñàkk moo tax suñu borom ci aay boobu mu ne kii yuzakkihim taskiya mooy sellal nit ki yar ko tarbiya ko ba nga xam ne ku ko gis gis ci moom jukko yi rafet mu ngi mel ne rek mbokk yi mbaar mi ñu toog bu fekkoon dañoo yem ci fondation bi kese ndax dees na ko mën a jëriñoo déedéet fu ñu jaar euh, yëkkati ko dem ba xadd ko daal di def finition yi noonu la mbir mi nekk kon alquran la ñuy jiital ci xol yi teg ci li nga xam ne mooy njàngum diine te la nga xam ne mooy la ci ëpp solo mooy jàng waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak la koy farañ fàcce waaye bu noppee nag ñu yar ndaw ñi ci loolu yi nga xam ne mooy alquran ak sunna yar leen ci li nga xam ne mooy téere bi yàlla bi subhaanahu wa taala ko Euh, yar leen ci ba nga xam ne ëllëg si biir fu ñu tase ak ay nit ñu xemmit leen gis ci ñoom di koy rafet loolu nag projet la boo xam ne dafa war a nekk projet kenn ku nekk ci xeet bi buñ seetloo nag wax dëgg yàlla euh, ci suñ gox bii ñun ñu nekk euh, man de damay wax ne Cheikh Ibrahima Khalil Lo ak docteur Mouhamed Lo yàlla daf leen a teel a yenk wen yenk projet boobu ndaxte man mii di taxaw di wax ak yéen kat ñenn kenn laa rek ci seeni taalibe ci ñu digg doomu ñi sax xam ne am na ñu ma ci mag waaye am na sax ñu ma mag ci ay ci seen i taalibe ñoo xam ne ba ñu tàmbali ci seen keppaar lañ tàmbalee di raam di jàng partout di jàng partout ci seen orientation ak ñibbalul yàlla ba liñ jot a xam ko si néew ñu xam ko te am na ñeneen ñoo xam ne sax suñu rakk leen ñoom tam ci yoon yoon woowu leen jaar kon mbokk yi yoon woow mooy yoon wi nga xam ne moo mën a delloosiwaat nit ñi ban mën a jàng seen diine xam ko yoon la woo xam ne tam ku ci yaru ku la gis ah gis ci rafet doo nekk ab saagaakat wala ab xasaatekat wala waxkatu euh, maanaam lu ñaaw luñ gis tam ci yow loo xam ne lu ñuy xeebel lu ñu lay xeebele loolu nag kon projet bu rëy boo xam ne yàlla daf leen ko teel a xamal ñu teel ko tàmbali man ba ma leen xamee ba léegi ci loolu la nekk yàlla leen ci yàlla gën a dëgëral kenn ki mi ngi gën a jëm xañ na ci wàllu base bi waaye docteur Mouhamed gis ngeen moom tam projet bu rëy bi nga xam ne moom la def fële ci dakaar nga xam ne université bi nga xam ne fa lay kar itam ndaw ñi buñ demee jàng ba egg ci niveau yooyu dem eggalee fa buñ fa génne mën a génn nekk ñoo xam ne ñuy jariñ aw xeet la kon ñooñu liñ leen di ñaanal mooy yàlla leen yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla dëgëral leen ca guddal seenu fan ca musal leen ci wax yi ñi nga xam ne ay eh, ay noon lañ wala noonu lislaam lañ ndaxte ku ku leen di ŋàññi rek defe naa ne lislaam ngay ŋàññ ndax ñoom lislaam rek lañ gis ñu ñu leen ñu koy taxaw ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala bërëb bi yàlla ko yàlla boole boole ko ci bërëb yi mu gën a barkeel ñu fi jàng alquran yàlla yàlla subhanahu wa taala seen alquran ñu continuer bi ñu gisee ñu nekk ay borom xam-xam euh, ñi nga xam ne continuer ci dem ba nekk ay borom xam-xam waaye même que ci continuer wul nekkaat leneen moo xam lu mën di doon da gis ne lan la njëkkoon nekk ci moom base ba dana feeñ ca fa nga xam ne fa la nekk di liggéey jazakumullah xeyran ñu ngi jégalu sëñ Mor ci guddal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi sant yàlla bu baax bu baax kon ñu mayee kàttan ak euh, fekkee dañu mën a ñëw ci bërëb bu sell bi ak bërëb bu tedd gannaaw loolu ñu ngi nuyu sëriñ bi bu baax a baax di ci teg suñu kilifa di sous-préfet ñu koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu mboolem euh, kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jeetaay bi. di rafetlu daje ko bu baax a baax a baax xam naa dañuy jéegul rek parce que waajal woon kàddu bi waaye dafa fekk nag euh, domaine njàng ak njàngale ci compétence yi ñu transféré collectivité locale yi kon wax dëgg yàlla lii suñu domaine la dañuy jàpp ne daara ji liñ fiy def ñun lañ koy defal ñun lañ ci wut parce que kenn ku ne xam na noonu la situation réew mi doxee. kon dañ ciy sant bu baax sëriñ bi ndax gis nañu ay ati at ñu ngi fiy ñëw di fekkee eh, ndaje bi gis nañ li fiy génn lépp macha allah donc yokkute la bu baax ci développement réew mi ndax ku jël ay xale formé leen yar leen tàggat leen ci lislaam ba ñu mokkal dëgg yàlla ci développement réew mi la ko kon ñu ko ci sant bu baax baax baax di ko ñaanal yàlla nekk kattan ba yéene yi am ci daara bi gën a yokku xam naa kàddu yi day gàtt rek parce que waa ñu ngi woon waxtaan bi asalaamaaleykum. allahuma xayrul xalqi julli bu wér. soo xamee ngaa bu jar nay dox daaw tëri wër moo xam bu dee na mbaa sax réew yu ndaw ñu wër. ba may xamee ngaa bu ak fii saase am na bu saas naa bu dul weesu jànkal yar sa xol ba mu wér. ci soxla mooy yar xol tàggat xel ba ku yar xol yar xel moo yar sa ruum jur wér samay gone faf yar nañ ma man ba ma wér yaraale kay dañuy tax a wér daaru istiqaama di jàngal alquran di taj bi maxaari liiru leer la إيمان والإسلام والإحسان دانك أم لولو لغة فرار خطر يقبل قول لخوة بوير حديث وسيرات تفاسير أمنا فوف بوير يوم بسخلات تفسدر تسنى كل بوير فرنسا أنجلا أنك مكيسات بوير تكت يرام لو تدور في الدوت من بوير فصير يوم جنب القرآن صريحا بوير majjere am na fi pusta sarfusee terewle maa fas fasaale samay doom fes na ñëpp bu am nañ résultat te santaat yàlla war na bu wér Moodu Xayar Ahmed ak Baye Daam taxaw Tuubal Soxay bu ren Moustapha moo des te sax dara wér fay moo doon permettre ni euh, Moustapha moo tax incha allah dina wér moo tax ma Modou Khaya Ahmed ak Baye Dame taxaw Diourbel Souhaïbou ak Moustapha moo des te sax dana wér tey soññi way jur yi ñuy foog fekk lépp wérul day fàttaloo fëkkloo liñ soxloo ñu ko ci wér del bàyyi fii muñ taxaar ndax kon nga am lu la wér ci say résultat yi doom mbaa sax njaboot du la wér ab yoon la ngay soññ say doom alxuraan doomu wér bàkkaar la ngay fëkk loolu alxuraan ba wër ñu leen nanewul seeni doom xam-xam bu dee dafa wër ñuy waare tey jiite tey leeral si naan si bu wër bul xeeb sa doom naa yu bees yi ngeen di hin di wérul tayoo ko moom farda sakkaar sunna sàkk la wër daara yépp it func lañ koy wër allahuma sallallahu sayyidina Muhammad jërëjëf sëñ Touré di taalifoon solo boobu nga xam ne wax dëgg yàlla dafa ëmb maanaa yi nga xam ne moo nekk ci daara ji fësal ko lu am solo la lu jara tasaare la xam naa ni ñun ñi yore communication daal istiqaamul moom bu tare bi jeexee dina ñoom jafe-jafe tasaare ndax li fi fas lépp lu war a tasaaroo la mbooloo mi jëriñu kon mbokk yi dawra shar'iyya mooy benn université d'été boo xam ne mbokk yi nekk Mbàkke Tuubaa ñoo koy amal dana tàmbali ren ci fukkeel ba juróom-ñett ci le 17 août ba 26 août incha allah ci école Serigne Massamba Mbacke fii ci Mbacke Bawal su bëggee ay leçon xam-xam moo fay am ci ngoon gi ay conférence publique yu borom xam-xam yi di animé moom moo fay am ginnaaw loolu taalimat idaariya li awliya yi talaamit mbokk yi ay recommandation yoo xam ne dafa jóge ci direction école Abdoulaye Massoud bi ci Ngaaw ñu tegloo ñu tegloo ñaan ci mbokki parents yi ñu teewlu ko bu baax a baax ak futur parents yi tam ñu ko bëgg a dugal seen daara ñu déglu te taalimat yooyu bu baax a baax. bi ci njëkk mooy daara jaa ngi sàkku ci képp koy indiwaat dongam mu beesalal ko jumtuwaay yi nga xam ne moom la doon jëfandikoo ndax xam nga ne jumtuwaay yi donga bi doon jëfandikoo ci at mi passé. muy wàll nekkee ci moom du ko wàll. su kaneen amee buy wàll itam yàlla mën koo musal ci loolu yooyu ay jumtuwaay la yoo xam ne lu jar a sóor la ci bépp ndaje mu mel nii ñeenteel bi ñoo ngi ñaan ci parents d'élèves yi ñu sóoraale man-manu daara xale bu ndaw boo xam ne mënta saytu boppam su demee ci toilette mënta sang boppam mënta yee boppam mënta sang boppam nga jébbal ko daara ji kooko da ngaa yokk daara ji liggéey waaye wàññiloo daara ji coono kon képp koo xam ne doomam foofu la toll na ko garde ci kër gi saytu ko tàggat ko ba mu mën a toppatoo boppam mu soo a xalaat indi ko di ko jébbal daara juróomeel bi ñi ngi yëgal mboolem parents d'élèves yi ne dellu si donga yi ñu ngi ko takk ci le 24 ak 25 août insha allahu taala duñu may kenn nag mu toog ba saa yu ko neexee muy di dongaam ñaari fan yooyu moom lañu ñu laytal pour donga yi dellu si waat ci daara ji ñu mën a démarrer ñoom jàngale mi ña kenn duñu ko may mu retardé bis yooyu nga xam ne moom la ñu tënk juróom-benneel bi bi ci mujj le 24 août ak le 25 août mooy bis yi nga xam ne ci la donga yi dellusiwaat ci daara ji bi ci mujj mooy daara ji décrété na gannaaw at mii ne bépp donga bu fi nekk benn feet rek lañ ko may ci at mi muy feetu tabaski boo xam ne dina diire eh, ay fan parents yëpp yëgandoo ko kon li ñu daan def mooy bu korite jotee ñu jot bàyyi dongo yi ñu dellu ci kër ga dakk na li nga xam ne mooy am rek mooy bu Tabaski jotee danañu may xale yi feet ñu delluwaat njaboot ga loolu dañu ko def ngir sàmmonteeg donga bi ak xelam bu xasee ba tàmbalee jël demaat dagg dellu siwaat ay gàllankoor ak jafe-jafe ya cay am moo tax daara rajo jàngat loolu jël décision bu mel noonu nga xam ne maslaha donga yi rek moo ci nekk ak loo xam ne day jëme seen jàng kanam loolu mooy déclaration bi nga xam ne daara ji ñu ngi koy jëmee parents d'élèves yëpp jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah